a emprisonné Ousmane Sonko. Là, il reste que 107 jours pour les élections présidentielles. Hier, à 6h du matin, dans le story, j'ai fait un live pour vous dire sortez, on y va, Macky est là. Mais là, vous n'avez pas compris. Depuis hier soir, aujourd'hui, tout le monde me dit grand, grand, grand, non, non, non, attendez. Le système américain, le style américain et le style français, c'est pas pareil. Certaines personnes sont méconnaissables de la politique. Et savoir que c'est la France-Afrique, opposition comme pouvoir. Si tu n'es pas d'accord avec la France-Afrique, tu ne seras pas candidat. Tu ne seras pas candidat. te keroog bi mu leen ne jour J moins cent douze laal na Ousmane Sonko bëgg na dellu prison depuis sànq ay femmes ñu ngi may yónnee coupatil ma laay fa Pape Alé Niang mu naan Sonko nee na non man on passe man nee leen soxlaa ma ay préciser ne leen fii la jëm fee la jëm fii la jëm yëg naa ko wax naa ko romb naa ko man luy sama problème Sonko na nekk candidat par force ndax moom si boppam li dal Macky Sall moo dal Sonko nii Sonko xam na ne li ko wër yëpp majorité bi c'est des lâches Macky Sall moom xam na ne ay dooméeraam rek ko wër malgré le vent et la tempête mais Sonko xam na ne li ko wër ñu bëri c'est des lâches tey jii mooy 107. booy carte waat démb J moins cent douze mën leen Sonko boo leen wàccul xeex il va prendre ses responsabilités buñ ko toroxalee si yéen la buñ ko dumaa si yéen la buñ ko reyee si yéen la foog ñu logique ñun ñëpp bañ neexalante moo tax yéen jeunes sénégalais. lamb ji neex na lool c'est bien beau mais ak li France def tey ci J moins 107 ak li France def tey dem ba Mbour ubbi fa seen gendarmerie ndax Mbour France ko moom après loolu dinaa ci dugg ci beneen live bu gën a <coughs> yaatu Mbour France ko moom dinaa ci ñëw ci beneen live Macky Sall ak li mu rey yëpp rey ay militaire rey ay gendarme tey France décoré ko ba nommé ko waat Il ngeen a institution française est-ce que c'est normal néna len ba ambassade France dañu bu Sénégal mu comme vous supportez des criminels comme vous êtes avec des criminels même les drapeaux français qui sont au Sénégal doivent être brûlés vif xam nga man xex amu ci demi mesure xeex warul nice xeex amul technique jaas bu waane amul ci xeex xeex xam nga la dóor xeex xeex la tactique moo ci am guerre lañ nekk ni bi Sonko di sukkal sëriñ yi di leen raamal may tàkk ñëpp di ma saaga booy gën leen maa nekk murit oh. maa leen gëm doon bàyyi Fall fuuf laaj leen seen Cheikh Khady fii te mu nekk association Lamp Fall man gën doon bàyyi fal fof gënu leen maa nekk murid mais bu ma nit Sonko dugal na boppam ci danger parce que Mamadou Dia lii la bañoon ba tax ni sacrifié ko yow munoo ànd ay nit ñu bañ dara yow nga bëgg contraire lu ñu bañ mënta nekk Ousmane tàndarma ji bi mu yegsee froidement nee la bul ko lekk tàndarma ji nee la bul ko lekk cote charenton nu mu demee newoo <laughs> naa la bul lekk tàndarma bi xaw ma lekk nga xaw ma lekkoo di jéem a neexal sëriñ bi est que ki nga doon neexal wax naa ko Macky Sall te dama ci jot leneen man de suuf si suur laa leen wax ku leen ne am na sëriñ bi waxtaan ak Macky Sall day fen ndax ñoom il n'arrive plus à joindre Macky Sall source bu leer waxuma leen ay waxantu de ñoom il n'arrive pas à joindre Macky Sall muy Touba Tivaouane Kaolack ñëpp il n'arrive pas à joindre Macky Sall Macky Sall moo leen di soxla woo leen te moment bi soxlaatu leen animateur culturel yi la soxla jubile ya lamb yi làmb yi mag làmb yi bu amee par un mois un mois le temps Coupe d'Afrique di ñëw ñu jubile dóor dëkk bi élection jàll France le candidat pas Macky Sall Macky Sall il n'a plus de candidat donc son candidat là ne va pas passer personne ne le connaît mais France moi, le candidat Macky Sall ko ko il pense que Macky Sall a déjà réussi son coup un coup qui ne vient pas de commencer parce que xam nga a war lan moo tax France jàpp ne Macky Sall réussir son coup manifestation boo interdit Sénégal n'y a pas de déglu France yi xoolal léegi ñaata ñu tey ñëw manifestation matatuñu deux cent kon ñun wal assuré bi sonkoo doon tari ba ne nit benn yàlla la war am benn yàlla la war jaamu ñun tey dañ ko rate endurance ba sonkoo waxoon ñeneen xeex bi day biir na biir lenn kenn laa mënul gul d'accord ñu ne na koo joxee keneen def plan bi du fi amee Sonko kenn dañ koy jox ay fiches de parrainage mu kii yëpp moom mooy jot ay fiches de parrainage mu génne ba dem toog këram à tête ne voté leen diw wala diw laay jàppale wala man maay nekk candidat mais kenn du ko wax lu muy def bu soobee suñu borom ku ko wax lu mu def boo ko campagne ma rey sa ndey kooku je ne badine pas avec dossiers yi waxoon naa leen ko bu yàgg leneen di ngeen dégg lu nekk waxoon naa leen ko bu yàgg leneen di dégg lu nekk façon dossier bu nekk di ngeen ko gis ñu bokk ci état bi ko wari dinañ la nox comme ñu bokk ci opposition ko du dinañ toj sa gat parce que ñaari kana ñooy xeex gu leen ne ñetti kan ñeent waxul dëgg ñaari kan ñooy xeex yeneen kan yëpp islam bi la faral kan bu majorité bi. majorité bi anti système bi la faral mais majorité bi c'est une majorité intellectuelle c'est une majorité à deux vitesses c'est une majorité plurielle si lañ nekk nii di xeexee ñun moo tax ñii tal làmb ñii tal concert ñii di Sonko tam mën naa la si nawetaan yi pour ñoom loolu mën na def Ousmane Sonko président ak ñu lay woon naan la non grand dégg naa ne juridiquement Sonko kenn mënu ko nekk. tere nekk candidat je regrette jour J moins 107 keroog nee naa leen bàyyi leen ma làmb ji ngeen di wax ku nekk naan amaa Baldé patriote la may benn ajjuma ñu war si am ñaari combat calculé wu leen combat yi nekk ci ay petits détails moo taxoon nekk mu si détails benn ajjuma ñaari combat la CEDEAO day joxe verdict ne Ousmane Sonko mais CEDEAO ñaa ñaata verdict la fi joxe joxe dëgg ñu ñu ne ko ingérence la duñ ko traité tey Aïssata Tall Sall wax ko muy nekk événement si man du événement déedéet CEDEAO moom day waxaat dëgg ci man du événement mais l'état là Macky Sall il s'en fout de la décision di la CEDEAO faalewul loolu waaw waaw. cour suprême yan juge fa nekk cour suprême ngeen foog ne Ousmane Sonko dina dem ba cour suprême ñu koy jox verdict saa yi magistrature béppay changé képp kuy gérer gérer élection ça va bouger ñii France mooy fal ñii Macky Sall mooy fal ñii multinationale yooy fal mooy ñuy dépensé si koom-koomu réew mi ñoom maam libanet ñoom seen ñoo leen gën bokk ci réew mi yéen ñi nekk deux millions de personnes tal ràmb ji juróomi libanais ñoo leen ëpp njëriñ ci biir Sénégal ndax au moins ñoom benn naaru libanais bu waxee am na décision bu muy wax am nañ dañ koy déglu il a son veto il a sa voix comme veto ñi topp ci làmb ji ban veto ngeen am te xam nga làmb ji lu ma ci neex tey l'histoire a donné raison au grand ministre de la justice xaw ma naka Sall menteur ki mënoon fen ki te mu ne woon Covid 19. France 24 mooy leen Sénégal li xale yi bëriwul làmb ji li Sénégal ñàkk làmb moo tax violence bi am si yaa ngeen di fàttaliku bi ñu tëjee Ousmane Sonko lan waa état waxoon xale yi dañu gëj a xeex dañu gëj a gis ñuy bëree moo tax aywa tey ministre bi de la justice bu Macky Sall du Sall xam Amadou Sall man xaw ma ko sax ndax ay c'est des démons tey moom il n'a pas eu raison si. 2021 la ko fi wax de ci Covid bi mu ne leen gëj a bëree tax yéen ñëpp génn xeex te bëri baa ngi circulé gisal ñoom ñu ngi gën a tàppoon bëri bi bëri baa ngi gën a circulé kan moo génn xeex làmb ji ngeen génn di xeex di fa reyante no mais est-ce que génn ngeen xeex pour seen njëriñu réew déedéet kon le ministre avait raison bi ministre waxee ñu ñëpp ko saaga ndey deux jours après laa si defaat live del leen 2021 ne leen ay revenons à la raison est-ce que. patriote yee xeex laa ilaha illallah patriote yi commencé ma saaga ndey man tam ci laa saagee seen ndey ne leen amul patriote bu wàcc xeex jottu ndeyam sénégalais yooyu wàcc xeex mais du patriote yi du waa passif boobu du moins sénégalais yooyu wàccoon xeex mais pas waa passif kooku moom depuis 2021 loolu laay jàppanteek ñoom te kenn mënu si dara dama koy wax bu suba ndax 2021 di xeex xam naa ko dem ci participer ruuxanteeg gars yi xam fu xeex bi toll xam li ci ñoom Barth def xam njëriñ li ci ñoom ay Aïdara def xam ku nekk ak ku nekk li nga dépensé si xeex bi ak njëriñ ji ci amoon ñoom ñi ñëpp di wax tey ku si nekk li nga def sa koñ ku si nekk ñi nga influencé pour lan ñuy sañ monter dossier contre Ousmane Sonko. te bu système bi falowaatee bu ñu ko yóbboo projet soo moytu Sonko day ñàkk parce que imagine toi ay Barthélémy Dias ak ñëpp ñu woo leen comme ay témoins le dossier du terrorisme bés bu taxawee devant la barre di ngeen am témoins yoo xam ne gis nga bu ñu ñëwee témoigner xoola xeex du am parce que boobu da ngeen di la fañ moo tax ma naan leen le Sénégal ne sera pas gabonisé foog ñu xeex pour libérer Ousmane Sonko sinon. la France Afrique va sacrifier à jamais Ousmane Sonko yéen xam nga yaa ngeen naan ma ñàkk sama ndey Sonko ci carte politique si boppam sénégalais la bokkatul ñun bu ñu xeexul pour muy clair moom te mënuma détailler yëpp affaire Mali Guinée Bissau Gambie fen yi ñu fenn yëpp dossier bi dafa luuru luur ba xoola nekkoon ci ay détails dossier di ko lire parce que xam nga la ñu ñoo ne woon Sonko pare nañ pour xeex Sonko ne kon kaay ñu xeex boo leen xeexul ma wakkaru ci yàlla te yàlla ak bëtam bii àdduna yàlla nekkul ci politique li ma leen waxoon naa leen waxaat politique bi bàyyi leen di ci xaalalaawu rasulilaay tey teg xaalalaawu république wala xaalalaawu intérêt ak xaalalaawu nation loolu la politique am politik danga koy teg ci cadre république république ñëpp a fa nekk càgga musulman chrétien franc-maçon juif ñëpp a bokk république Sonko il a raison de se battre te bu ñu jógul jóg xeex dina xeexal boppam bés bu xeexal pénitencier yi moom mooy ñàkk ndax c'est un prisonnier lu ko neex lañ koy def à moins que mu dellu prison prison bu mu dellu baax na mu sansel na am liberté boppam ak liberté wax nit yi di ko dégg kese ndax moom day gagné combat bi pour clôturer tey sama pa malien yëpp woo nañ Sall venu en France on l'a décoré l'imam ratif de Paris a déclaré que le dimanche eux tous des juifs moi je n'en fais pas partie parce que je m'en bats les couilles c'est l'imam qui a dit que le dimanche eux tous des juifs c'est pour ça qu'aujourd'hui 90% des mosquées de France n'ont pas prié étaient fermées. 90% des mosquées de Bercy à Ivry, Vitry jusqu'à Rungis, les mosquées étaient fermées. Les Dajjal se sont réunis. Les Domeram se sont réunis. Les lâches, les utopiques, les hypocrites se sont réunis. Bon, comme on li dit parle Ousmane Sonko dem romb palais exploser palais exploser building dugg hôpital principal récupérer Ousmane Sonko même si vous ko dóoree bal bu vous récupérez son corps mais lu mu dee s'il y a 500 gendarmes eux tous doivent mourir Il un côté civil bu y am 2000 2000 morts nañ ko am ndax Sénégal moom la bande Gaza c'est Israël tout ce qui est passif, vous êtes considérés comme des Palestiniens, vous, êtes passifs, Vous êtes les Palestiniens du Sénégal. Vous êtes martyrisés par Macky Netanyahou. Nous sommes les gens loolu xew ci dëkk bi nañ ko wax prochaine attaque bi li ma leen wax ñu libérer Ousmane Sonko quel que soit le prix à payer Boy, vous ngi wax rek xam nga vous ñuy mujjee dem stade bi tëb nañ am nañ soixante dix morts soixante di morts yooyu ñu ko amoon sur le terrain Ousmane Sonko génn par force xamoon lan laay bañ ñu ne xeex bi moor waragu ci bokk ba pare ñu am ñu dee ba pare kon ñu dee ba pare ñoom ñooy ñan quoi au juste donc man loolu laay bañ dégg ñu dee ba pare nag ñu dee wala mais wu leur histoire wala wala fan lañ koy def est-ce que Sonko leen gën est-ce que ñu ñëw leen gën ba ñoom ñu dee pour projet bi. après ñu ñu bëgg ni non nañ ko teg ci la paix même bu demul suñ Sonko va partir parce que y a déjà eu des morts lii ñaaw ñaaw na ko noppi. interdit nañ seen manifestation def leen ko seen regarde ko vous mais di ngeen ko def ndax xam naa sama gars yi di ngeen ko def. patriote jàppalante leen États-Unis li ñu defoon ba toroxal moyens yi ñu tegoon sur la table ba toroxal Macky ñun France bu ko tegoon toroxal Macky fii biir France mais on a mis quel chacun pour soi, Dieu pour tous. basuma basuma mbare di clôturer pour ne leen attaque xeex dëggantaan mooy libérer Ousmane Sonko balaa moo xeexal boppam jox leen bakkanam te fa la jëm yéen ngeen ma léegi daggitu Pape Alé ne ma li nga waxoon grand déedéet waxuma ko de Pape Alé Niang fi muy liggéey yaay yëg na ko jour boobu jour bi may yëg na Sonko ne day dem ci lu ko yëg ñeneen ak ñeneen ci lañ ko yëg mais ñoom bëgguñ ci wax noonu la demee mais ñun ñëpp yëg nañ ko mais gars yi ci bëggul wax mm, xeex laa leen woo ku pare pour xeex nanga jàpp si combat bi noo si mun jàppee financière logistique yaa xam loo si jàppee loo si jàpp ci combat bi foog ñu xeex xeex bi gagné ko quel soit le prix à payer foog ñu yóbbu Macky Sall dos au mur te les dés sont déjà waaw yaa ngi naan le 17 li ma ci métti de ñun de Ziguinchor on va encore démarrer la danse bu ñu ko démarrer xëy na ñëpp démarrer ñun Ziguinchor yéen waa 77 78 yéen waa Évreux waa Rouen Nice communauté Mandiack dañuy préparer nii. une très grande manifestation à Ziguinchor le 17 Si vous ci mënee appuyer Gaï, il faut les ba Si vous appuyer Ziguinchor nous devons ay un transport autorisé ou pas on va manifester à Ziguinchor le 17 si les opposants là ne manifestent pas à Dakar ou ça ne nous concerne pas mais vous le 17 vous les habitants de la Casamance vous les fils de la Casamance ñun une manifestation nous fexe ba le 17 àdduna de ci seen tout le monde a à Ziguinchor de bunkeling à Diembéring tout le monde a à Ziguinchor de Carabane à Simani, à de Brassou tout le monde a Ziguinchor transport yi na leen leer na ci man personnellement man sama ka man ma koy yónnee sama qui man samay ñom jira ko kon ñu fibre secteur Kobanaaw pas Tobor Banganga Niamone un Niamone deux on va tout gérer l'essentiel c'est de manifester l'essentiel c'est de sortir dire non à ce qui se passe dans ce pays jàpp leen ci combat bi ñu gagner combat bi bu ñu paree bi ci yoon au 06 05